Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm li ci yéen kaay yi ñu fas yéene ko doo rek la tukkee démb ci ndajeb conseil des ministres njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay jël na fay dogal sas nañu gindi askan wi ci rapport IGE of nag ak euh, Cour des comptes lu ko dalee juróomi at yi ñu weesu 2019 ba tey bëgg na askan yi gindeeku ca na nga xamante ne moo wundu yooyu les rapport mu ngi ci yéen kaay bi di Walf euh, Quotidien yéen kaay bi di euh, réew mi Quotidien ne njiitu réew mi sàkku nañu leeral lépp teg ko ci table ji ngir askan wi mun cee gindeeku ci ne ca direction yi euh, bokk na ci tamit projet PASTEF bi moom la bëgg a jëmmal ci euh, jamono ji ba tax na bépp rapport goo xamante ne njiitu réew ma euh, def cee tegoon con cam ñu fexe ba gindi ci askan wi yéen kaabi di las fa la desandi Bassirou Diomaye Faye bi sàkku nañ ci ñu siwal rapport cour des comptes cour de contrôle yi fi jot a bokk na ci ne njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram lañu ñu jotoon a làq nëbb ko askan wi loolee dañ ko war feeñal ci doxalin goo xamante awul ci yoon yéen a kaabi di l'info ne audité gëstu lépp loo xamante ne daanaka moo jëm ci leeraange mu soxal askanu Sénégal bëgg a xam ni réew mi doxee yéen a ne bu doonoon la ñuy door daanaka ndortel ga euh, tàmbali na ca moom njiitu réew mi euh, président Bassirou Diomaye Faye xamle na ne OFNAC euh, na def liggéeyam bokk na ci tamit inspection général d'État ak ki tamit cour cour des comptes juróomi at yi weesu ci wàllu rapport nañ ko jukki teg ko ci taabal ji sàkku na tamit ñu saytuwaat euh, contrat bu SONES euh, ak euh, seen o bokk na ci coowal Dakar na bëgg nañu gind ko ci cowal ndox mi ci kaw gi bëgg na ca gindeeku yéen kaabi di l'info moo ñu ko yëggee yéen kaabi di turbine ne mangoog njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye sas na waa IGE OFNAC ak Cour des comptes ñu soobu ca liggéey ba yorinu Covid 19 xeexum mbas ma woon ak ministre ak daje yañ ca jotoon a tudd yéen kaabi bu yaboo seen nelaw jeex na rapport yi ni mel dañ ko teg ci penc mi ñëpp mun caa gindeeku Alioune Ndoye ak Mansour euh, fay euh, bokk na ci rapport OFNAC ak euh, lam leen siiwale rapport bu 2020 jëm ci tamit li nga xamante ne mooy mari tew Niane ak Mimi Touré yéen kabi di turbine wax na ca jàpp nguur gi fi ne ci jamono ji bëgg na cee leeral askan wi 24 heures moom ne leeraangi la sàkku moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am Ousmane Sonko pare nañu tembe ngir fexe ba askan wi dootuñu ëmpale ni réew mi di doxee ña ñuy dox ay ndombal tànk nañ koy doxale ak njeexital yàq yi ni mel mu ngi ci vingt 24 heures yéen bi di Le Soleil génnagul pale bak euh, ndajeb conseil de ministre gi woon démb décision yu am solo yu njiit réew Macky se njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye jël publication rapportu euh, juróomi at yi ñu weesu bëgg na ko bëgg na itamit ñu fexe ba samp ab euh, kuréel goo xamante ne mooy bug di saytu koom-koomu réew mi bokk na ci tamit ab kuréel geneen goo xamante ne bëgg nañu ñu mun ko feete ngir mu saytu lépp lu jëm ci wàllub diine waaye nag googu lépp ndaje bëgg campagne ñu gerte e, geneen gay ñëw aj màkk jekk yeneen ak yeneen njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moo ni waxee yéen a kaabi ne lu jëm ci li jàmp te nguur gi war cee e, taxaw waxtaane nañ ko démb ca ndajem conseil des ministre yéen a kaabi di e, sursaane coowal mbirum jigéen daanaka moo am ca ministère gi ñu dënk wàllub ndaw ñeek tàggat yaram Mariam kan Diallo département formation ak coopération jot na fa tekki ndombol tànkam ndax xejoowul ak xadi eh, eh, Diène Gaye ma ñu dënk wàllu tàggat yaram soxna soosee di Mariam Kan jallo waatoot ne soxna si war a ko mun a jiite ndax moo ko ëpp eh, li jaasaak yeneen ak yeneen yéen a ne coow la tàmbale na ca googu lépp ministère yéen a di du Sud Quotidien xëy dañu dégtal lu aju ci coowal Dakar Nav ARCOP moom dakkal na doxalin ga bokk na ci leeral sax moom la njiitu mi Euh, Bassirou Diomaye Faye sàkku ci coowal Dakarnave yéenekaay bi di l'évidence mu ngi ni jégteel coowal euh, ONAS euh, ay délégué du personnel jot nañoo leeral xamle ne lañ fa wax ne moo fa am wute na lool ak na kër ga di doxee gàllankoor amul ca ONAS gàllankoor yi tamit amul ca port autonome bu Ndakaaru Mamountaga Sy jiite collectif gi boot acteur ya fa ne ñaawlu nañu nañu dëkkale Mountaga Sy ci yorin gu awul ci yoon yéenekaay bi yor yor gi xëy duñu dégtal Euh, fukki fan ak juróom ñetti ci weeru avril 2023 la woon la nguuruk Macky Sall jotoon a teg loxo euh, Bassirou Diomaye fay yóbbu ko kaso yéene cabinet atum ren ji nag fekk na président ba euh, pale ba moom Bassirou Diomaye Faye yéene cabinet di stade mu ngi ñu degtal Real def na lépp yéene cabinet moo ñu ko yëggee Ligue des champions donc bokk na ci quart retour yaak ndam nga ca am yéene cabinet xëy ñu dektal ne ñu ngi nar a soobu ci demi-finale ak finale